asalaamaaleykum jot nañu ndigal ci xalif général kullu murid cheikh sidil maxtaar yàlla na fi yàgg mbàkk te wér ñëw ca rakkam ja sëñ amadul maxtaar may cheikh moustapha na fi yàgg te wér ñëw ca doomam ja sëñ cheikh madina moom sëñ mbàkk madina na fi yàgg te wér ñëw nag ca cheikh abdul fatah ah may cheikh gaynde fatma tey yàlla na fi yàgg te wér ci teewaayu taaw taaw yi ki nga xam yi maamam yi ak baayam yi ak magam yi dañ ko sopp bëgg ko kooku mooy kan mooy sëñ Moussa Mbacké Mouhamed Ndiagne moom sëñ Mbàkke soxna loo ah borom tayif yàlla fi yàgg téwér ak bay laa bëgg bàyyam ba lool Cheikh Abdou Fatah sopp ko teg ko ca kaw màggalu Cheikh Moustapha gii daayira sëriñ Moustapha Mohamed ahi bahil Khadim ñoo woote bis boo xam ne bii bu ñu xëyee ba ngoon jàngal xuraan ak xasida ca guddi gën nag sëñ Moustapha Mohamed ca boppam moo ñëw fekk si daayira bu sell boobu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu ngi woo section yëpp seex yi Daaru Xuddoos yëpp ak donga xarit yi wëlëre yi sëriñ Moustapha moo doon sëriñ Mbakke Mohamed bis baa ngoog ajjuma la 21 di màggalu Cheikh Moustapha ku feeñ ci bisu boobu ci kanam sëriñ Moustapha Mbakke Mohamed ci lu baax dootoo nëbbu na ñépp wuy sëriñ Moustapha